Hadj Mansour ci tardem bi waaye garaaw luñ ko waxee di dem ci li nga xam moom mooy yéenekaay yi comme ko defee ci kàllaamay nasaraan ak li nga xamante ne moom mooy jamono ji ñi ñëpp di waxtaanee muy ndaje bi nga xamante ne kon ci la di Khalifa Ababacar Sall naka noonu Barthélémy ni ki dem ak réew bu Sénégal réew mi quotidien moom la ñuy daal di tàmbale gis ngeen ko ci xëtu njëkk yéenekaayam teg na ci image bu nga xamante moom mooy ki la di réew bu Sénégal ak Victorine Ndeye moom mi nga xam moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllum économie sociale ci biir réew bu Sénégal ñu gis nag kile di journal bi la di réew mi quotidien wax ci boobu lépp ponk nag ci li ñuy gën a taxaw mooy li nga xamante moom mooy kon image bi ñu gis ni ki démb daanaka démb ba léegi moom mooy daal di def kon li nga xam moom mooy viralité ci lu jëm ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé muy tête à bi nga xamante ne ki la di Khalifa Ababacar Sall am na ko ak njiit bu réew bu Sénégal Macky Sall ni ki démb kon bi la di journal yéeni kaay bi la di las quotidien xëy daal di ci addu euh, jëpp rek ne moom laas quotidien li nga xamante nag moom mooy ndaje bile euh, mën na nekk loo xamante ni jàpp nañ ne euh, xëy na ay maanaam ay pas yu njëkk la jëm ci li nga xam moom mooy dialogue politique bi nga xamante ni jamono jile ñun ñëpp ñu ngi koy waxtaanee mu ngi nekk li nga xamante ni njiitu réew bu Sénégal moo koy daal di woote naam kii la di Khalifa Ababacar Sall waxagul ne dina dem ci dialogue bi waaye mën nañu jàpp ne mën nañu joxtu ne xëy na dina dem wuy ji boobu le tax kii la di Mansour ñu daal di euh, sampa laaj jamono jile ndax daje bi nga xamante ne njiitu réew Sénégal Macky Sall ak Khalifa Ababacar Sall am nañ ko ni ki euh, démb euh, ànd ci ak Barthélémy Diaz mënuñu jàpp ne xëy na dafay daal di indi li nga xam moom mooy réeru diggante Yewwi Askan Wi maanaam diggante Khalifa Ababacar Sall ak leader bu Pastef Ousmane Sonko bon bi wétu bu mooy foog mu am xajamte ci biir coalition Yewwi Askan Wi ñeenti fan moo des wala ñetti ci procès Ousmane Sonko ñeenti fan moo des wala ñetti ci procès détenu yi nga xam dañ leen teg loxo ci manifestation yi Ousmane Sonko Biro Aïda Mbodj Déthié Fall xalifa Sall ñoom ñëpp dañu bokk benn coalition dem élection euh, euh, locale dem élection législative nii mhm. bu ñu eggee waxuñu woon dañuy tas après coalition yi dañuy continuer ak coalition mais ku ne am nga sañ-sañu ut sa candidature bopp boo demee ba ci deuxième tour kiy gagné ki ëpple ay voix war a jàkkaarloo ak ki dem ci turu benn bokk yaakaar ndax Macky Sall du dem buñ ci yeggee ñoom ñëpp ñu àndandoo jàppale kooku pour mu gagné euh, deuxième tour bi mais tey principe yooyu yëpp taxu na premier manque de respect Yewwi Askan Wi du ñoom diggante leader yi mais si diggante ak peuple bu Sénégal bi leen jox ay collectivité locales yu ñuy njortul woon ba jox ko sax ñoo xam ne muusuñu defuñu sax ñetti weeru politique li li ñu waxoon askan wi li leen jox majorité wala lim ci ay député yoo xam ne amul benn opposition bu ko mos a am ci histoire politique gu Sénégal à l'Assemblée nationale te gis nga euh, golo ci taatu garab yéeg ba wàcc ba waaj yéeg ak lu mënoon di am lu mënoon di am Khalifa Sall mënoon na éviter proximité ak président Macky Sall en attendant en attendant parce que dama waxoon Déthié Fall bi mu déclaré candidature am ma ni ko teel na ci yow parce que danga am bàkkaar xam nga la mooy bàkkaar bi mooy dafa dañ ko jox liste nationale bu coalition Yewwi Askan Wi moom ak benn collaborateur u Khalifa Sall ñu dem déposer ko liste ba baaxul fekk avant liste nationale bi ñuy annoncé ni baaxul lañ jëkkoon a annoncé liste Ndakaaru ni baaxul après mu baaxaat entre temps liste national bi Ousmane Sonko jiite ñoom ay dëmbooj nekk ci pratiquement leader ponkal yépp nekk ci ñu ni boobu baaxul mais kon kon bu ñu demee ci war a am benn xeex bu ñuy xeex Khalifa Sall ñu war a daganal candidature am ñu war a daganal candidature Ousmane Sonko tey ñi jàng jàpp ñépp ni ñooñu seen candidature waragul président Macky Sall annoncé amnistie Khalifa Sall ni mun naa nekk waa PDS moom assuré nañu ni Karim dafay nekk candidat mais entre temps Ousmane Sonko ñu ngi koy toñ di di séntu moom tegu daanu bu koy mën a teye doon candidat ndax moo tax appel bi barke bi def loolu la ci jublu mais ci cëppaandaw ja kon bu ñu nee trahison mu ngi commencé am ci biir coalition nañ ko gëm donc buñ ma buñ ma tegal ay lay ci ni ndajale moo xamante ni bii faw meer bu Dakar ak président ndaje mi moo leen boole ndaje mi lan la rencontre boo xam ne sixième édition forum économique solidaire xaw ma comment mais loolu amul amul ku mu obligé obligé wul Khalifa ak Habib même bu ci amee invitation d'honneur euh, honneur bi ñu am ci biir Yewwi Askan Wi mënoon naa tax ñu gàttal rencontre boobu pour éviter photo bu mel nii xam nga nit ñi seen kanam ni mu bëllee Khalifa sax a gën a bëlli ba ça pose problème gis nga li ma ne a wax bu daay mi ñii duma bàyyi janvier deux mille vingt deux laa ni gëwma coalition Yewwi Askan Wi parce que y a des traîtres ci biir Birahim dafa mel ni sa xalaat waroon na ak xalaatu El Hadj Mansour ci gis-gis bi nga xamante moom mooy ndajeeg Khalifa ba Sall ak teewaayam ci li nga xam moom mooy forum mu démb bi. waaw man Khalifa Ababacar Sall xam nga je le dis en en français total image bi ma gis man ci sama jàngatu bopp. qui y avait autour de Barthélémy le maire actuel de Dakar Soham Wardini ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall ancien maire également. Dakar Khalifa moo jox soo am soo am jox Barthélémy forum mondial la boo xamee ni waxuma guleet ci Sénégal mais guleet ñu def ko ci Afrique guleet ñu def ko ci Afrique am na ñoo xamee ni tey ci biir Yewwi Askan Wi je l'ai dit sànq c'est pas parce que y a image que ñoom la ñu dañ ko yàbbi muy xalifa Babacar Sall muy euh, Barthélémy Diaz muy également euh, président ou coalition Yewwi Askan Wi président wu conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi di Habib Sy moom moo jiite président moom moo jiite lii di euh, leader moom lañ jël def ko ne ko ñu jiite ñu ñëpp muy Barthélémy muy euh, euh, Khalifa Ababacar Sall muy Ousmane Sonko muy keneen ak keneen ñoom ñëpp ñu ne léegi yow yaa ñuy jiite yow Habib Sy mais ñooñu jàpp naa ne dañu fa dem d'abord pour dooleel Barthélémy Dias ci li ma sama jàngatu boobu. pour dooleel Barthélémy Dias bi bokk ci ñoom donte bokkul conférence des leaders waaye kenn la ci seen i ndaw ñoom yewi askan wi mais ñeneen ñaar ñi nga xam ni ay ancien maire lañu mais euh, liggéey bi du Barthélémy Dias rek ku liggéey am na liggéey yoo xam ne l'état c'est la continuité maire bi fi nekkoon di Khalifa Babacar Sall am na lu mu doon liggéey ci lu jëm ci wàllu euh, yenn ci ay organisation yoo xam ni dañ koy def fii ci réewum Sénégal ci Dakar capitale bu Sénégal te ay réew yu bari di ko xëccoo euh, Soham Wardini également nekkoon na maire Dakar am na yoo xamee ni jot na ko jéem a lijjanti ci Dakar au nom du peuple sénégalais mais comme je le dis l'état c'est la continuité te continuité tamit dafa am ci biir état ay démembrement état mairie démembrement état la même bu dee un maire opposant à la kulial da ngay collaborer avec état du Sénégal l'état central li tax ñu indi ministère bi yore wàllu collectivité territoriale ak yooyu moo leen boot ñoom ñëpp mais le maire muy maire ville muy maire commune maire bu mu mën a doon opposition ou pouvoir ou maire boo xamee ni amoo benn parparloo wala féete ci wàllu politique mais boo xasee ba doon maire am na àla kul yàlla loo di ko jëflante ak état mais jàpp naa ni ci sama xalaat bu gàtt ni loolu du soppi dara ci bëgg-bëggu yeewi askan wi bëgg-bëggu yeneen i coalition bëgg-bëggu F24 bi ñu bokk ñoom ñëpp bokkandoo ko signé seen i charte ne ni ñoom la ñu bëgg mooy Macky Sall la yoon rafet na euh, kàddu gi neex na rafet na euh, euh, ngemb nga ko xawma ma nga ko benn bu bu rafet mais du tey ñun lañu gëm moom la ñu gëm mais ci moment wu état la moment wu république la ci moment république boobu nag dañuy fàtte lépp luy contingence politique ñëw ci république buñ ko noppee nag na leer ni bu leen dee boo mettul Barthélémy Dias bokk na ci ñiy dem taxaw Ousmane ko ci xaw ma leen di xaw ma euh, ci procès dina dem taxaw ko ci ci ci euh, ci tribunal. Hmm. c'est tout. ñu jeexal vite fait Senghor. mu ngoog Thial ñu wax ak beneen xibaar boo xamante ne tey jii nag euh, bi di journal. wala yéen kaay bi li di euh, soleil moo koy daal di taataan muy euh, feebar boobu nga xamante ne ñu ngi ko doon wax ci biir réew bu Sénégal ni daal mm-hmm. muy euh, fièvre bi nga xam ne moom la ñu duppee fièvre hémorragique des Crimée Congo Sénégal ne nañ daal ñëwul na ci biir réewu Sénégal waaye nag jamono ji dalal nañu xelu askan wi ñoom naata suñu naataango taskatu xibaar yi nekk ci journal wala yéen kaay bi li di soleil ndaxte ñoom nee nañu situation bi jamono ji contrôlé nañ ko ndaxte benn cas bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci frontière bu Sénégal daal na faatu euh, fukki ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu jógee te gannaaw loolu nag euh, topp nañu ñi nga xamante ñoom ñoo am contact ak ñooñu ñëpp daa jamono ji daaj nañ leen di mettre sous isolement tax nag ñu daal di dalal askan wi ci boobu lépp feebar soxna Thiala ñu jeexale yéen i kaay ak tàggat yaram ak li nga xamante nag moom mooy suñu ndaw yi nekk ci équipe nationale bu Sénégal ñu gis ne euh, kon ñoom ñu bëri ci ñoom jamono ji ñu ngi ay difficultés yu bëri euh, bokk na ci ñi nga xamante nag ñoom ñoo nekk ci équipe nationale bu Sénégal a jamono ji gis ngeen ko ak ni ko yéen i kaay bi la di stade dépé ci xët njëkk ko yéen teg ci Euh, kii di euh, Sadio Mané suñu daw bi nekk ca Bayern mu ngi ca wet ba Idrissa Gana Gueye nekk ca Everton club euh, bu Angleterre Chelsea ak ki nga xam ne moom mooy Edouard Mendy naka noonu ki la di Kalidou Koulibaly yéenekaay bi jàpp ne wala sax titre tey jële les héros de Yaoundé galère en Europe maanaam gaynde yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu la ca Côte d'Ivoire représenté coupe d'Afrique des nations jamono ji ñu ngay am ay jafe-jafe ca diwaan bu Europe ca wet ba nag soxna Thialla équipe nationale bu Sénégal ndaw yi nga xamante ne seen at yéegagul fukki at ak juróom-ñaar tey jël la ñuy def seen ñetteelu génn ci coupe d'Afrique des nations seen catégorie foofule ca diwaan bu Algérie tey nañu war a ne leen équipe boobu Somalie bu euh, juróom-ñaari waxtu jotee maanaam 19h euh, ci ngoon euh, ci kanam tuuti lay doon incha allah ñu fàttali nag ne Sénégal ñoom ñoo gagné seen ñaari jë ñaari jongante yi nga xam ne moom la ñu njëkk benn bi ak Congo ñu daan ko benn bal ci dara beneen bi ak Algérie pays d'organisateur ñu daan ko ñett bal ci dara kon jamono jàppale ne Sénégal ñu ngi ci bonne voie waaye coach bi li mu bëgg mooy ñu jeexal ci anam ñu tàmbalee ngir mën a nekk leader ci seen jaajëfal loolu mooy li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey ci aljuma ji ñu desandi ak yow ba tey ci li nga xam ne moom moo xewoon ci euh, juróomi fan ci weeru ma mu bokk juróomi fan ci weeru ma atum 2019 lañ koy daal di tàmbale muy tiis boo xamante ne euh, daloon na euh, Ziguinchor maanaam Sikicoor jamono jile ba tey jile mënuñ ko daal di fàttali ndax tiis bu metti boo xamante ne daal ñu fàttali ci village Denampor foofu ci arrondissement bu a nekk ci département bu Ziguinchor région bu Ziguinchor ab pirogue maanaam ab gaal moo fa suuxoon am tax ñu amoon fa lu toll ni juróomi doomi